seydina muhammadinil makkin wa ala alihi wa sahbi dawi ridwaani wa tamkiin mbokki gi yi jàkkaarloo ñun seen télévision LCS ñu ko baaxoo jàkka euh, defee ak euh, yéen muy émission pencum l'islam euh, ak seen mbokkum taalibe Oustaz Soxaw Balla Seck ci àjjuma bu jot ci waxtu wi ñu del soir ci kàttanu bu yàlla fas yéene indil leen ñu ko baaxoo def ñu ko daan defee rek incha allahu ci eh, waxtaane lu jëm ci suñu tey ëllëg te mooy suñu diine eh, xam ngeen ni eh, ginnaaw bu ñu siyaaree bokki jullit yëpp bokki lislaam yëpp nuyu leen ci nuyu jullit ak bokki jullit bokki jullit nuyu bi ak siyaar bi ci suñu kilifa bopp ki nga xam ni mooy Cheikh Sidil Mokhtar tey Serigne Touba Khadim Rassoul toogi jotaayam te mat ko sëkk ñu ñaan yàlla sunu borom yàggal taxawaayam yeggale ay mébétam ba defal ko lu kala njottam ci barke way juróom yu tedd ya maamam yu tedd ya seexul xaddim ba lépp loo xam ne niseer na ko mu def ca lu kawe njortam e, noonu lañ daan nuyu itam ki nga xam ne mooy représentant Serigne Touba fii ci région du Cap Vert muy Alaaji Mbakki yu fay jaarale itam suñu nuyoo mu jëm ci bokki taalibe yëpp waaye rawatina itam nag e, bokki julli yëpp di nuyu waa diwaan Masalikul Jinaan Eh, xam ngeen ni dañ ñoo ngi woon ci eh, seen xasida gu ñuy wax nax ju xadaa il ajj jamono bi ñu ngi nekk ci nax ju eh, léeg-léeg ñu dalal kenn ci bokki taalibi yi kenn ci borom xam-xam yi indi ko ci plateau bi mu waxtaan ci kenn ci jàmbaari lislaam yi rawatina waa kër seexul xadim xadim rasul Eh, bi nga xamee nag tey ñu ngi tollu ci eh, bii weesu eh, alaaji Bousra Samb la ñu fi dalaloon ñu ngi koy ziar baax di rafetlu xam-xamam bi yàlla dogalee nag ñu toll ci bunt boo xam ni mooy jikko ju rafet bi Sëriñ Tuubaa fii minal axlaaqi wal aadaabi maa sa yaquudukum ila sawaabi am na ci ay jikko yu rafet yoo ki teggin yoo xam ne ci téere bii te yom yo wommat jëme ci jub ga bi tollee foofu nag lañu war a waxtaane eh, kenn koo xam ni eh, ab wammataa kon la woon jëme ci jub ab xetti laa kon la woon di koo xam ni borom may sunu borom la mu jaarale ko ci Serigne Touba mu feeñ ci moom muy kenn ci jàmbaar yi Seexul Xaddim mi yàlla sédd ko kenn ci njabootu Serigne Touba yi muy ma Mouhamadou Lamine Bara Mbacké kooku mooy kan mooy Serigne Ñaan Diop moom Cheikh moom Lamine Bara Mbacké mu bokk ca mag ña incha allah loolu da dina gën a leer léegi ci kàttanu yàlla ndax euh, daanu daanu daanu ci wax léegi lépp loo xam ni waxtu wi laaj na ko euh, ci kàttanu sun borom euh, daanu ko ci def ci kàttanu yàlla ñuy nuyu nag ñi nga xam ni yëpp yàlla dogal na ñu bokk ci Serigne tuuba rawatina Serigne Baara waaye Serigne Ñaan Diop mi nga xam ni ca jàmbaar yàlla waaye ca mag ña la. waaye ci yàlla yàlla baaxee ñu liggéeyal Serigne Touba la gisee Serigne Touba nangul ko topp ko eh, almaru ma man ahabba kon mën nañu wax ni tey Serigne ñaan Diop te yàlla na yàlla tas ci barkeem yokk leeram moom ma nga ci Serigne Touba mën nga ci Serigne Baara eh, bi yàlla dogalee. Euh, euh, loolu am ñu di ay royuwaay yoo xam ni kon ñun war a roy lañu euh, ñu fas yéene ci indi loo xam ni waxtu yu may nañu ko amoon nañ sax koo xam ni waroon na ñëw fii woo nañ ko ngir mu toog yëkkati ay bayit yoo xam ne dafa jëm ci ay wolofal yu jëm ci sëriñ ñaan yu borom xam-xam yi def waaye yàlla dogal rek euh, euh, sunu mbokki techniciens yi génn yu bare bari ba tax na euh, ñu ñaan ko mu may nu beneen yoon ci kàttanu yàlla ñu teewal ko fii mu yëkkati way yooyu ñu way jëme ci Serigne ñaan Diop moom mu nga xam ni waxtaane ko mooy waxtaane Serigne Touba. mooy waxtaani Cheikh Mamadou Lamine Baara mooy waxtaani képp ku baax ci réew mi e, ñuy siyaare njabootam bu baax a baax a baax e, ki nga xam ne moo toogee ab xalifaam ñu ngi koy siyaare te muy Serigne Ibrahim e, Fall Diop moom te mu tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall loolu rek tegtal la ci ni moom la may yeey bari bari ak baatin ba ak sañ-sañ ba ak gisee gam gisee Serigne tubaa ak cir bi ko sëriñ Baara sédd te dana gën a leer ci kanam incha allahu waaye daa defoon boppam ab taali bi wàcc boppam te noonu la ko sunu borom bëggee noonu la ko waxe gis nga dénkaane Luqmaan dafa am solo ba yàlla nettaliwaat ko yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam gis nga wala tusaayir xaddaka linnaasi wala tamsi fil ardi mar'an feneen mu naan tilka daarul axiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqina mu wàcce woon boppam suufeel boppam di roy di bëgg rek nekk ab taalibi Sëriñ tubaa ni ko Serigne Fallou Mbacke waxoon ne ak yëpp ak dig taalibe ci gën kon Serigne ñaan Diop foofu la tegoon tànkam nu dëgmal nag bisam incha allahu muy le premier mai ci kàttanu yàlla fas ko yéene ñaanal yàlla taas ci barkeem yokk ay leeram dolli suñuy xéewal ci barke bi liggéey bu tedd ba mu liggéeyaloon Serigne Touba jaar ci njabootu Serigne tubaa waaye bu mujjee ci Serigne Baara Mbacke Serigne Touba boole kook Serigne Baara loolu dana leer ci kàttanu yàlla eh, mu ngi gane woon àdduna moom Serigne ñaan 1869 eh, waaye itam. Eh, diggante boobu toogu fi xam nga ni ku seet xam ne alayhi salaatu wasalaam fi mu fi mu dégg iqra ba al yawma akmaltu lakum diinakum toogul noppaluwul benn yoon eh, bu dul woon la xadd xalax naan insaan fi kabadi nit toogu fi benn yoon ndax duniyaa mati atun lil axira li man ahsana rukubaha fii liggéeyukaay la pour fële ñu jëm waaye loolu ñoom moom la ñu jàng dégg ko gëm ko teg seen tànk jëfe ko ñooñe nag kenn la ci bokk muy Serigne Ñaan Diop eh, bala may sori eh, ma nuyu njabootam gépp rawate na sëriñ Abdou Karim Mbacke Bari moom sët ci moom sëriñ Assis Laat ci moom sëriñ Cheikh Aziz ak soxna Mbenn yàlla yàlla yokk leeram moom it tamit euh, sët la ci ñaan Diop njabootu sëriñ Basiru Xujja yi sëta nga fa sëriñ Moussa ak sëriñ Jiili kër sëriñ Baara daanaka foo dugg ñëpp benn lañu waaye ñëpp sëti sëriñ ñaan Diop a nga fi fépp te loolu mu nga jiitoo ca euh, taawub sëriñ Baara Mbàkke di sëriñ Moodu Xafis muy sëriñ Moodu Baara moo njëkk jël ci ndigalul sëriñ bi doomi sëriñ ñaan Diop ba muy wayjuru sëñ Modou Baara xaadim euh, euh, muy sëñ Modou Baara xaadim Modou Baara muy sëñ Modou Baara euh, muy sëñ xaadim Modou Baara wayjuram di doomi sëriñ ñaan Diop di magi kon mag la ci Cheikh Aziz ak sëñ Aziz Laat ñu bokk ndey waaye itam xam ngeen ni incha allahu ci kàttanu yàlla fi nu to nekk ci ndakaaru sëriñ bi am na fi kër goo xam ni kër sëriñ Touba la Eh, mu fiy ñëw par at bàyyi fi kenn ci njabootam muy doomi soxna Maymuna mi nga xam ne mooy ab taawam muy bu Jóob jiite daayira Safinatul Lamaan di jàmbaar di ku maamam wóolu waaye ku maamam bëgg waaye ku maamam gërëm mu koo xam ne itam li ma wax léegi ku wàcce boppam la waaye ku dal la waaye ku fonk njabootu Serigne Touba gi rawat euh, njabootu Serigne Baara gi nekk itam seenu Baye Fall moom Abibou Diop kon Serigne Abibou ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax waaye di la siyaare ci kër Serigne ñaan waaye di la siyaare itam ci kër gi nga bokk ci Serigne Cheikh Sidi Moukhtar muy sa maam waaye ñu di la siyaare abib bi itam ci nekk gi nga nekk taalibe di liggéeykatu sëriñ bi nga xam ni fu mu bëgg a jóg jëm fa rek sëriñ bi ne ko toogal fii lépp dana la fekk mu toog fii ci kër gi nekk bëkk néegu sëñ bi waaye nekk taalibe sëriñ bi waaye nekk koo xam ne ku nangu la waaye nekk koo xam ne waaye ku woyof la waaye ku wàcc boppam moom abibu ànd ak daayira safinatul amaan gépp sëriñ abibu Diop kon ñu ngi lay ziar baax a baax a baax naka noonu euh, sëriñ abibu euh, ci la ñu siyaare euh, alaaji Fall mi nga xam ni moo yore daayiratu fédération daayira mu naa ne bu ñaan ak euh, sëriñ euh, ak alaaji Fall mi nga xam ne moo yor ak sëriñ Talla Xumma euh, di nuyu itam nag ku baax a baax ki nga xam ne boo ko tuddee ñu ni jëwriñu Cheikh Sidil Mokhtar muy jàmbaar di nit ku baax koo xam ne liggéey liggéeykatu sëriñ Touba la di alaaji Noyin Maar ñu ngi koy nuyu bu baax ci émission Serigne ñaan Diop mi nga xam ni moom lañ fas yéene waxtaane te xam ngeen ni inde zikri saalihiina tanzilu rahma ñëpp xam nañu fu ñu tudde waa ju baax fu ñu ko waxtaane xéewal day wàcc ca barab booba waaye ci réew mooma ci gox booba te xéewal bu wàccee day yaatu tasaaroo ba egg ci ku ko foogul woon sax kon nag yàlla na yàlla taas ci barkeb Serigne Niane Diop waaw Serigne Abib bu ñu ngi lay ziar baax di ànd ak yow bis bu tedd bii ak sa bokk yi ak sëti sëñ ñaan yépp nag ak njabootu sëriñ ñaan gépp ni ma ko waxee ci sëriñ Cheikh Aziz sëñ Abdou Karim ñu kenn sëriñ Modou Baara sëñ Xaadim Modou Baara ñun njaboot gépp ñu ngi ànd ak ñoom eh, di fas yéene nag iddi ci loo xam ne waxtu yu may nañu ko eh, gis nga eh, nekkal fi yàlla rek am solo wax naa ko ba tey gis nga fanweeri demee la ñett yi fi nekkoon di liggéeyal àdduna ak xëccool àdduna tey seeni bàmmeel raaf nañ kenn xamatul fu mu feete bëy yaa nga cee taxawaalu waaye ñi fi nekkoon di sonnal diinee ko wooteel diine lislaam tey kenn ku ne ci ñoom tey eh, tey la sa kër gën a naat ndax yàlla leen fa wóotu tey jii boo demee kër sëñ ñaan xam ni ki fi nekkoon liggéeyal na Serigne Touba ki fi nekkoon liggéeyal na Serigne Bara Mbacké ki fi nekkoon am na gërëmal yàlla mu jaare ci Serigne tubaa mi ngi ganee àdduna 1869 ci dëkk bu ñuy wax Warak Warak Diop Warak mi ngi ci wetu Louga Euh, foofu la sëñ ñaan gane àdduna euh, woy juróom góor mooy sëriñ Moustapha Diop euh, ginnaaw bi soxna roqee ñang itam mooy way juróom jigéen waaye ñu nuyu nag foofu ñu baal ñu nuyu sëriñ Moustapha Diop mi nga xam ni mooy imaamu kër sëñ ñang jàkk jumaa ji ci kër sëñ ñaan mooy imaam ba noo ngi nuyu baax di ko siyaar ci ajjuma ji sëriñ bi di ko jàng alxuraan waaye di ko bare xam-xam waaye loolu itam boba jamono sax xëy na taxul mu melni taxul mu tasaru ni waye tiwul domi soxna ñom ñanga ña nga ca woon ndax ñom loolu lañ mësa xam doon seen liggey jang ak bay di dunde di jang ak jëfé di jaamu yalla sëñ ñaan kon euh, mu nekk ko xamni ni ca mag yalla loolu dana gal leer léegi ci euh, wax sëñ Musaa Ka ci ñu jëkk topp Sëriñ ca la euh mu jang alcorane ci ku wax Galay sey moko jangal alcorane alxuraan Galay mi ngi won dekk bu wax Warak dëkk bii mu ganee àdduna war ak Jóob fa la sëñ nekkoon seigne galay mom mo jangal serigne ñaan alquran waye bimu ko jangal alquran bo wattu ko wattu bu leer itam mokal ko mokk din rafet itam ginaaw bi e, dem na ci serigne ibrahim djum mashari mi wam xam xam bu mag mom ngeen xam deug histoiream gis bindam ak wayam ak digëm ak serigne touba ak ya ca xew yu bare bare yo xamni xew na digëm ak serigne touba mom moko jangal xam xam bu geeju ci fanni xam xam yep ginaaw bi e, bi nga xamé nak jang na alquran jang xam xam ba fess del nek alim ci kullu fan ginaaw bi lu wulbutiku nak nek jangale kat di jàngale bari na ñoo xam ne jaar nañ ci daar yi seen ñaan mu jàngal leen ci loxol boppam fam man bi fam yooyu nit mbooloo mu baree baree bari jàngal na leen ba ñu wulbati ku nekk ak géej bay jàngale e, e, diggante mille 1869 yi mu gane àdduna ak 1941 de bi bi mu fi mu làqoo e, ñu denc ko fee ci Touba def fi dara lu dul liggéeyal yàlla waaye itam ku doyoon waar la koo xam ni ku rafetoon jikko la waaye ku woyofoon la waaye ku bari woon xam-xam la waaye ku mën a muñ la waaye ku teel a feeñal ay baax la di bi nga xamee nekk na ci daara ji moom Serigne Niane mm, xam naa Serigne Cheikh Aziz mi ngi dégg ci ak Serigne Habib ñoom ñëpp ñu ngi teewlu émission bi e, ku ñu tudd rek suñu ziar jaarale nañ ko ci Serigne Sidi Muxtaar mi nga xam ni lépp Serigne Niane la moom te moom day toog ci boppam di waxtaanee Serigne Niane e, bi nga xamee ni e, nekk na ci daara jooju laata mu fay jógee. Euh, euh, daana teel a feeñal ay baax li naan euh, alifa nuskata loolu ba ca way wa muudu bu séri wax teel naa feeñal mbaax trop teel a ci wàllu jaamu yàlla teel am ay mayit teel a itam sëriñ tuba ci ay isaara ay juñ yu mu doon def moom sëriñ ñaan ndax buñ masaan taxani jamono boobu nga xam ni ñu ngi ci daara ji suñ dem taxani ca tool ya léeg-léeg dana taxan waaye léeg-léeg dafa mujj day mbaar am mbaar dagg ay ngeer wala ci garab yi àll bi mbaar ko moom Serigne Niane ba mu doon ker mu toog ca jàkkaarloog pegg ko bi donte boosal amul woon ci yooyu jamono it wala amuk ko it fi muy jàkkaar day xalaat sunu borom màggug yàlla gi ak it nag di teg. Eh, di dal te xam nga xalaat lu lu yaatu lu am solo ci lislaam ku dem ci masalikul jinaan ba jàng baabu fikri xam ne xalaat dafa baax di xalaat yàlla ak mbindaafin yàlla yi diggante boobu am na yu mu ci daan feeñal yu baree yoo xam ne am na ci loo xam ne mënees na ko indi fii ci télévision bi waaye am na yoo xam ne sax kenn ku mën a indi fii ci diggante ay may yu ko sunu borom may ak ay karamaat yoo xam ne daana ko feeñal moom Serigne Ñaan Jóob mi nga xam ni moom lañ dëgmal incha allah bisam ci kàttanu yàlla le premier mai fas ku yéene ñaanal fas ku yéene màggal ca Touba ca péncum sëñ Ñaan Jóob eh, foofu daana toog Euh, mbar ñi taxane ba noppi mu juk ànd ñum dik ci daara ji bu dellusee euh, ñu tek say yi mu toog mm, ba yag euh, donga yi def yu fi donga rek daal di wax ak serigne bi ni ko nak serigne ñaan mom du du du du du taxan tu ñuy taxan mom du taxan biñ ko waxe serigne bi serigne galay neen ah du taxan ñu ni waaw mu wolu ko mu ñew mu laaj ko ni ñaan lan moo tax bu ñuy sey mbokki talibi di taxan yow do taxan mu ni leen euh, mu ni mu ni sëriñ bi ñoom loolu la ñu wax mu ni waaw mu ni ko laaj leen ñu laaj ko ñu ni ko yow taxanu mu ni leen ñaata say ngeen yor ñun ko ku ne wenn say bu ñu doonee juróom-ñeenti donga moom it mu ni kon wàññi leen say taxan naa ngeen taxanoon bu ñu wàññee muy fukki say bu fekkente ni fukk lañu mu bañ a taxani bu ñu wàññee bu ñu indee fukki say ak benn mu ni leen wàññi leen ñu wàññi muy fukki say ak ñaar bu ñu dee fukk ak juróom-ñeent ci ay taalibi bu ñu wàññee muy ñaar fukki say ñu mujj ñoom it xam ni kii gis nañ ko taxanut gorul jottul fam toogoon jógu fa daa mbaaroon mbaar mu sedd toog ca ferenk la wala mu dajale ay tànkam sukk jublu penk toog ñu taxan ba noppi mu topp suñ ginnaaw waaye nañ ko bàyyee boole ndax suñ ko boolee suñ dikkee luñ ko boolee li wax duñ ci am ndam ndax xamuñu fu aw sayam di jaar xamuñu fa say wiy dikk jóge te saa bu ñu wàññee mu mat sëkk ci kanam sëñ bi sëñ mujj dinañ ci yedd di ndax bàyyi leen wax lu amul nit dafay wax lu ko lu wóor lu ko leer nit ki du wax lu ko leerul tere leen ko yedd leen ci te xam nga loolu itam jëfe zaahir la dana jaadu ci sëriñ bi comme wax nañ ko ay yoon mu dañ mu xamal leen di leen nit ki lu muy wax war na ko leer li alxuraan di wax wala tax fu maa laysa laka bii ilmun inna sam'a wal basara wal fuhaada kullun ulayka kaana an mas masula léegi nag da ngeen dellu ci shariatul islam te maandu tey te ngeen bàyyi ku ngeen gis rek di luxuboot ay mbiram wante ginnaaw moom ni ngeen taxan na taxanul ma mu ni taxan na ñu wàññi mu mat ngeen dellu ko wax dellu ko wax miraaran léegi bàyyi leen ko ci yooyu jamono lañ xam ni kii eh, eh, donte ay xale lañoot xam nañ ni moom taxan gi moom ñàkk a taxan moom leer na leen waaye li leen jaaxal mooy say yi dikk te say yu xamuñu fu muy jógee loolu si ñaan eh, digganteem la ak sunu borom eh, bi nga xamee ni loolu dem nañ tuuti itam mu mujj nag di yeew boppam déglu bu baax lu doy waar la eh, di yeew boppam di dóor bi nga xam ne daan yeew boppam di ko dóor nag loolu itam mujjoon na jaaxal nit ñi lool dañoo mujj dem ay bokkam ak i jegeñaaleem yeew bi muy yeew boppam di ko dóor moom sëriñ ñaan dañu mujj dem. Euh, te booba tout tànk la ci Zahir dañoo mujj euh, jaaxle ci ba woo ku ñuy wax sëñ Aliou euh, sëriñ ma dikke jëleem ku ñuy wax sëñ ma dikke jëleem lañ mujj woo laaj ko ci xalaat wala ay ñaan wala lan nekk la def ba sëriñ nan la mën a def ba ñu dëppoo ci waxtaan ak moom wala sëriñ bi nu ñu war a def ba mu bàyyi yeew bi boppam di dóor dóor yu metti bi ñu ko waxee loolu mu daal leen tontu xamal leen ni leen man dama am. koo xam ni xam naa ni dana feeñ dana jamono dana woote léegi dafa am kuy woote léegi koo xam ni danaa ko seet te su ma koy seeti booba nag Serigne Touba lay junj euh, bu ma koy seeti euh, lu ma am danaa ko jox lu ma gis saa mbokk am ko itam tama man koo jël mbaa ma attan ko danaa ko jël yot ko ko su fekkee dénk nañ ma mbaa ñu lebal ma mbaa ñu abal ma itam mbaa ma donte fi jàmbur la sax danaa ko jël jox ko ko ndax xam naa ni jox ko rek mooy jariñ tey ëllëg wax ci wax yu yéeme yu bari yoo xam ni du wax yoo xam ne lu neex wax la fi ñu toll ci jamono bii ak it euh, fii ci waxtu wi ndax ay waxtaan wax naa ko ba tey ñett moo am wu néeg ak pénc ak ëtt waxtaanu biir néeg saa boo ko waxee ci pénc ma euh, lu xew yawa waaye daal teel naa junj Serigne tubaa teel naa wane ay xarbaax teel naa wane mbaax teel naa def ay isharaat xam le ni moom xamna ni Serigne Touba moy xet xettali waa xettali waa ko no tay geul li Serigne Touba ni bi andi ni malaasul mo af saw fa man aradal khair fi culté dari ni fal yelo bi lolou itam bi nga xamene lolou amna am bi lolou amé ci la ci la ci la ci lañ ko bàyyi di masla ak mom di masla ak mom di masla ak mom ba mbayi dor yoy way dafa dal di set Serigne Touba bi muy set Serigne Touba nak mu ko fekk fan Jolof xam nga Serigne Touba mbacke Bawol mbacke kadior la joge ñëw Mbàkke Bawol ñëw Daaru Salaam sanc ko daal dem Jolof diir bu gàtt la fa def dogal bi ñëw mu dem tase ak boobu mu ngi néggandiku liggéeyu géej bi nga xam ne ni Sëriñ Tuubaa doon wax naan ñaari yàkkamti am nañ yàkkamti nañoo dajeek man ba fay lislaam ma yàkkamtee dajeek ñoom ba yeesal lislaam taxawal lislaam te may am victoire loolu sëñ bi daana ko wax dina def isaaraat ci mel noonu eh, bi nga xamee ni dikk na Jolof nag ci la foofu la jébbaloo moom ci Sëriñ Tuubaa moom Sëriñ Ñaan Jóob eh, bi mu jébbaloo ci Sëriñ Tuubaa ci Jolof eh, ba sëriñ bi yeewi ko mu dal di war rek fa dal di war rek itam continue ci jang ya ak jangale jangale ak euh way kat ba sax dafa wax ni lutax nga xamni mom ci mag ñala mom serigne ñaan euh daf ni euh, dégg nga bu baax euh, euh, deglul bu baax ma wax la deglul ma wax la cheikh yu mag ya sant jóob deglul ma wax la cheikh yu mag ya sant jóob ku wal sa lebal lebal ku wóor mu fay la ceeb ku wol sa wóor lebal ku wóor mu fay la ceeb déglu mu wax la seex yi sant Jóob ku wol sa wóor lebal ku wóor mu fay la ceeb lii waxi mag ñaa dégg nga sëñ Musaa Ka mu ni sëriñ ma duñ toqaak sëriñ Laamin Jóob déglul ma ngay lim seex yi sant Jóob dama laa bëgg a wax tuuti ci fu mu jaar ci sëriñ Touba ak seex Moustapha ba jaar ci egsi ci Cheikh Mamadou Lamine Baara ak li mu ko defal ba dël ko foofu mu ko dël tey ak lu ko waral ci lu waxtu yu maye bu ko defee eh, mu ni mu ni mu ni ku wol sa wóor lebal ku wóor mu fay la ceeb sëriñ ma Madun Tuqaak sëriñ Lamine jóob moor Ami jóob Ousmane Diop Cheikh Gora Diop Abibou Diop Cheikh Ñaan Diop lii la sëñ Moussa Ka wax lii ba mu koy wax lu yàgg la woon te daf ci lu ma ci jukki la mais lu bari la seex yi sant Diop waaye pour xamal la li ma bëgg waxtaane mooy xamal la Serigne ñaan Diop ca seex yi Serigne Touba ya sant Diop la bokkoon loolu moom nañ ko xam bu baax a baax a baax waaye nag itam moo ko orienté ci seex Mamadou Lamine Baara loola dana ñëw ci kattanu yàlla ndax itam euh, boo gisee euh, boo ko tuddee tudd Serigne Baara boo tuddee Serigne Baara tudd ko loola ca Serigne Touba la jógee ci kanam tuuti ci kattanu yàlla seex seex mu Serigne ñaan liggéeyal la Serigne Touba. ànd na ak Cheikh Moustapha ci tukki ci ndigalul Serigne Touba ndax dafa nekkoon ku am balaax am faseex baleex la woon waaye faseex la woon ku dégg la woon ku bari xam-xam waaye ku mën a wax ku jottal aw làmmiñam la woon ba tax na ñu bari taamu woon nañ ko ci wax taamu woon ko ci jàng jànge ci moom waaye taamu itam ci kilifa ci ànd ak moom tukki taamu kàddoom itam déglu yi taamu itam déglu waxtaanu Serigne ñaan yaakaar naa fi mu nii eh, li ma wax ni toog tey tey njaboot sëñ ñaan Diop abibu ci fii ci HLM Kër Sëñ Sidi Muxtaar ak ñu nga seqal jataay bi ñu déglu plateau bi yaakaar naa ni lii eh, kenn du ma ci jéppi eh, bu ko defee ñu bàyyi xel ni moom borom xam-xam la woon waaye balix ak fasix dafa yu bokkul am xam-xam taxul man ko wax am xam-xam taxul làmmiñ wu set waaye yàlla mayoon na ko lii léegi nag Cheikh Moustapha di tukki Serigne Touba boole koog moom ñu war a tukki bu yaatu la woon bu yàgg la woon moom sëñ ñaan bi nga xam ne tukki nañ itam te biir tukki boobu ñu bari sax duggee nañ ci yoonu murid ci voyage boobu Serigne ñaan Diop defoon ci biir réew mi ànd koog Serigne Moudou Moustapha moom Serigne Touba xalifatul awal eh, mi nga xam ni mooy magi Cheikh Momadou Lamine mi nga xam ne moo mujjee sëñ ñaan ci ab liggéeyam ci la ko sëñ Touba jaarale feejal ko ci. Eh, nga xamee ne ànd nañ ba dellu si itam ci tukki boobu nga xam ne bari tàbbi nañ ci yoonu murid ginnaaw bi sëriñ naan ànd na ak sëriñ Omar Mbàkke gelongal mooy way juru sëñ Cerno gelongal mii soo demee dina la leeral loolu mu ngi fii fi Touba ànd nañu tukki itam ci ndigalu sëriñ Touba tukki boobu itam tukki boobu tax nañu baree baree baree bari ci la sëriñ Cerno Mbàkke gelongal Omar Mbàkke gelongal amee taalibi yoo xam ne ca lañ ko topp ba seeni stade te toppaate ji ànd ak waa kër sëñ Cerno Omar gelongal googee loolu mën nga ko laaj sëñ Thierno Galangal dana la ci wax euh, euh, wax ju leer nañ gën a leer sama wax ji tukki boobu nag ñaari tukki yooyu bi mu amee moom sëriñ ñaan euh, ñetteelu tukki bi nag Cheikh ba Lamine Bara moom moo sàkku moo sàkku loolu nag yàgg naa am nga gis ngeen sëñ Tuubaa alali si talaba kaw niyal xadim des na sàkku waa ju baax ci nekk ak moom wala nga xool ko bëgg mu ànd ci sab liggéey parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na ñaan yàlla mu jàppale lislaam ci ñaari omar yi kenn te loolu ñëpp jàng taarix xam nañ ko léegi bi nga xamee ni ñaari tukki yi jàll na Cheikh Mamadou Lamine baara war a dem tukki tournée yooyu mu doon def moom moo ñaan Serigne Touba mu ànd ak Serigne ñaan jóob bi nu àndee dem ba dellusiwaat Serigne Bara ci boppam moo wax sëriñ tubaa ne ko su ma sañoon dootuma taqali moom. serigne touba ne ko bolé na len faw fi ak fanu jëm li mo waral serigne ñaan job and ak serigne bara féete ak serigne bara jaxoso ak serigne bara ba deretim jaxoso ak derata mon ne ko ku la wokk xurima boo daggee ma naaj lii waral serigne bara ak serigne ñaan ndax bolé serigne touba la te lu yag waye nga japp rek ni ci cheikh yu mag yalla bokkon ci ñu jiitu la woon bokkoon ci jàngalekat yi la bokkoon waaye ci borom xam-xam yu la bokkoon waaye ci ñi yàlla mayoon basiir ñu amoon gis-gis la bokkoon waaye ñi wàcce woon seen bopp la nekkoon waaye waxoon naa la léegi ba ci matt mam doon taxani que ni ku yàlla teel a may la waaye waxoon naa la itam ku teel gis Serigne Touba la parce que waxoon na ni dóor na boppam di yow dóor yi métti bañ jaaxle ba sëñ ma ah, dikkee gëléem bi bi ñu ko laajee jëleem sëñ ma dikkee jëleem bi bi mu ci dikkee ñaan ci ndimmal waxtaan ak moom ba ay bokkam ñaan ko ñu wax ak moom sëriñ ñaan itam dafa xam le ni dara damay bëgg a tàmmal sama yaram dóor ba bu ëllëgee su ma jëloon yi yëfi jàmbur yut ko sëriñ tubaay suñ ma dóoree fekk maanaam li ñuy wax entraînement rek tàggatu ak riyaada ma ci loo xam ne lii lu ma am damay xam le ni bu ëllëgee dinaa ko yut ñuy wax seexul xadim xaadimu rasul loolu mooy li nga xam ne moo waraloon muy dóor boppam dóor yi métti ak it bëgg ci lu olamaa guy mi wax nañ ni ku mel ni sëñ Moussa jóob mi nga xam mooy imam ñu bari wax nañ ak it yàkkamti ak bëgg gis Serigne tubaa ba jox ko boppam yaramam liggéeyal ko bëggatul ñaqal kenn bëggatul nekk fenn lu ci Serigne tubaa moom Serigne ñaan Diop loolu waral na itam bokk na ci li sabab dóor yooyu mu doon dóor boppam kon loolu ak tegtal la firndal te ci ni alaama la ci ni Serigne Niane teel naa am na baatin waaye teel naa am itam feeñal xar baax waaye teel naa gis Serigne Touba waaye xam nga itam ci ndigal itam euh, li Serigne Touba laa taf alo cheyen bi gayri isni fal isnu sartum fi rabuli saani loolu itam ndigal itam nga xam ni euh, nga xam ni ndigal la am ci ci ci ànd ak sëriñ Serigne Bara Mbacke loolu itam euh, ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel bi nga xamee ni bokk na ci seex yi ba noppi xam ngeen ni seex Sidil Muxtaar mi nga xam ne tey mooy Serigne Touba. ñëw na ci sëriñ ñaan waaye loolu itam ci ndigalul sëriñ Baara la amee ndax sëriñ Seexoo Bal lañ ko tudde moom moom sëriñ Sidi Muxtaar jox ko ko itam moom sëriñ Baara ko tudde joxal ko ko boppam waaw mu yoral ko boppam itam ginnaaw bi nee na xam naa ci moom yërmande ak laabir ak ñeewante ak fonk gum ko fonk ak fum ko teg goo xam ne gii ndax li ma bëgg ndax lépp dana ko def ci moom ndax yërmande ak ñeewante ginnaaw bi la ko jox sëñ ñaan ne ko bu jàngee ba noppi na dellu ci sëriñ Cheikh Awa Balla ginnaaw bi nag diggante boobu sëriñ Baara dem rafiqul aala sëriñ Muudu Xafis sëñ mooy sëñ Muudu Baara mu jëlaat ko dellu si waat ko kër sëñ Cheikh Awa Balla xam ne itam fii mu toog lu doy waar lu mat a bàyyi xel la kër gi sëñ Sidi Muxtaar nekk yàlla na fi yàgg muy kër kër Serigne Baara gi ci pénc mi fii ñuy wax guy mbind fi guy gi nekkoon te def ko ko tey kër sëriñ Baara ci biir guy mbind itam tam nekkoon bayal bu yaatu foofu la ko Serigne Baara joxe foofu la la ñu joxe Serigne Baara sëñ Sidi Muxtaar foofu la ko joxe sëñ ñaan waaye itam at jamonoy dox ba foofu itam euh, fi la Serigne ñaan delloo si waate fi la Serigne Ba sëñ Cheikh Ahmadou lay nekkaat ci Serigne Baara nekkaat Serigne Touba defaraat ko nekk fa tey jii am na dëkk bu ñu kuk kuk mi ngi ci eh, dëkk ci ci Saalum foofu la Serigne Sidi Muxtaar nekkoon ak sëñ ñaan dëkk la boo xam ne xar ya benn village su Serigne sëñ ñaan boo Jóob la bokk na tam Daaru Jóob ji ci wet Touba 15 kilomètres de Touba waaw boobu sax xëy na mu gën a siiw waaye dëkk ba le ma wax di kuk kuk fa la Serigne Sidi Muxtaar nekkoon bi mu nekkee Serigne ñaan ba dellus ba jóge fa door a delluwaat Cheikh Sidi Muxtaar sëñ euh, Saxaw Balla sama turandoo. Euh, ko muy muy mu nekkoon koo xam ni tam euh, ku rafet xalima la woon waaye ku rafetum xel la woon euh, mu nekkoon itam koo xam ni liggéeykat la woon bu mag ci biir liggéey bi yàlla jagleel ku liggéey bu rëy boo xam ne bu jafe la boo xam ne kenn ku nekk bëggoon nga tey jii ñu waxtaane leen la yaa ko def wala bokk nga ca walaal nga ca dara bari na nag mu ca bokk fii di kër gii di ci guy mbind mooy kër kër si Sidi Muxtaar gi kër gu mag googu euh, sëriñ Baara sëriñ ñaan Diop la ko defarloo woon loolu it lu ma a xam la bi mu ko ne defal ma ko te def fa lu mat fukki néeg ak ñaar ditam te liggéey bi sëriñ Baara ni ko liggéey bi bu mu ëpp weer bu mu ëpp weer daf ko daal di defar ci benn bis benn bis am na sax ñu wax ne ñaar waaye li gën a wóor mooy benn bis loolu nag la ko waral lu mat a lu mat a lu mat a leeral la du càgg ni woon dafa doon wuti ay sàkket ak i baraag di daaj benn baraag nga fa woon sax boo xam ne siège buy wëndeelu boo ca toogee ma nga ca woon mu defal ko fa sëñ baara ak baraag ba siège boobee baraag boobee mi ngi mujj mujjoon kër sëñ Abdou Aziz Baara lii ma la wax laa jël sëñ Cheikh Aziz dana la jox lu leer wala sëriñ Sidi ame boo demoon tey laaj ku ñuy wax Moustapha Diop ci guy mbind ci imam wala nga laaj Habibou Diop sëtam bii wala kenn ci mag jalal wóor ni la barak bii mu ngi mujjee kër sëñ Abdou Aziz Baara daanañ ci barkeelu te yàggul bu fa jógee yàggul euh, bi nga xamee ni fukki néeg ak ñaar def na ko fa defal ma fukki néeg ak ñaar te liggéey bi bu mu ëpp weer mu def ko ci benn bis kon du caagi ni woon dafa dafa wuti woon matt wala ay ay xer ak i ak ak ak i sàkket ak i xat di sàkket di liggéey bu doon loolu du man benn fan wala ñaari fan waaye dafa wax dafa ànd ak njabootam ak i taalibeem ak i bokki boppam ak i soppeem joxi ndigal itam ne kenn ku ne simple sam néeg dindi say per ñu indi ko defal ko Serigne Bara doomi Serigne Touba bi loolu amee fi saas ci bis bi ñu daal koy defar mu def fukki néeg ak ñaar def fa baraag baraag boo xam ni def na fa benn siège boo xam ni day wëndeelu bu ci sëñ baara toogee da ngay wëndeelu kon loolu li alxuraan dex wa ma yulaqaha illa so azin azim lu am solo la lu rëy la lu màgg la loo xam ni itam mat naa tax ñu mar koo mën a siyaar ndax booy jëfal waa ju baax lañ la cay fayee doo xam nu muy toll defar rek fayuk sunu borom lay doon fayuk yàlla noonu la mel loolu itam sëriñ Baara wax ko ci ni ko liggéey malayka nga ma liggéeyal defoo jëfi nit waaye dañ lay fay payu malayka yow sëñ ñaan Habib yaa ngi dégg bu baax yaa ak safinatu lamaan def ngeen jëfi malaika waaye yow sëriñ ñaan dama lay fay payu malaika keroog dañ ko jógal taxaw mu jóg taxaw mun ko yëkkati sa loxo waaye lu jiitu loolu daf ko jiiteloo mbooloo mi tes tàkkusaan salatul asri nga sise mu ne ko yow yaay jiite julli gi ñu ànd ñoom ñëpp julli tàkkusaan ba noppi ñu sëlmal sëriñ baara ni ko jógal taxaw ñaan mu jóg taxaw mu ko yëkkatil say loxo mu yëkkati yaari loxoom Muniko, fayna la waye falna la pal go xamni gi fay gi moy fal la fal go xamni gi yekati na la bu doto soufi mu bis ni ki tay def na la ngay njit faw do soufé lo soxlaati sunu borom noko fajj ci mbaxam ci ci wi nga ma liggéeyal ngir jëmmé borom tuba lolou kon lu rëy la bis ki tey def naa la ngay njiit njiitu góor yàlla yi lu sax yegg na ci boo demee ci sëñ Moussa Diop laajoon tey dana sëñ Baara yegg na ko dana ko def naa la tey ngay njiitu góor yàlla yi yëkkati naa la naa la pal fay naa la pay goo xam ni dinga xam ni dëppoo na ak jëf ji nga jëfal mu jëfi malayka ma fay la pay malayka waaye bokk na ca lu mu ko mujjee wax ni ko tey def naa la ci ca ngay jiit ci góor yàlla ya kon sëñ ñaan njiit la ci góor yàlla ya damay wax ñu bari mënuñu joxe ñu bari dañ coppati tuuti rek waaye jëf jooju mu jëfoon yombul ba tax na itam ñu bari ci njaboo tamit ay doomam moom la ko tudde ak seexi sëriñ tubaay wax naa léegi li ciy firnde ji ab xalifaam Cheikh Fall la ko tudde euh, ah, doomam xalifa bu njëkkam di sëriñ Jóob ñaan sëriñ Tuubaa la ko tudde ka ca top serigne san kaca ka ca top tay di Cheikh ibrahim Fall jóob Cheikh ibrahim Fall Babul Mouridine la ko kon yoy ay tektal la ay firnde la ci ni liggéey la bo xamni bi bii liggéey bu am solo la bu mag bo xamni bi serigne def nako ci digëntem ak Cheikh Lamine kon euh, lu mata bayyi dom xel la jël doom tuddé Cheikh ibrahim Fall da ngay woné ak talibé waaye kër njëkk mu tuddee ko sëriñ Serigne Touba mu Rasul eh, ñu bàyyi xel bu baax a baax ni kon jëmm googu joo xam ni eh, abib ñu ngi cay siyaar bu baax mu soxna may Maymuna soxna may mu bintu Cheikh Sidi Muxtaar di ab taawam waaye bokkaat ci Serigne Ñaan Diop ndax Serigne Moussa jóob kon ñu ngi lay siyaar bu baax ak daayira Safinatul Amaan bu baax a baax ci bis bu ñu dëgmal ñu bàyyi xel rek ni eh, Serigne Cheikh Aziz. foofa la bokk mook sëñ Abdou Karim ak soxna Mbeen sëriñ Xaadim Moodu Baara foofa la bokk sëriñ Asis Laat ci sëriñ la bokk sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru Xujja ak Jiili foofa la bokk sëriñ Abdou Karim Lahat Baara bokk sëriñ Asis Amet mu Sidi Amet mu sëriñ Baara mooy maamam foofa la bokk moo jur way juróom kon sëriñ ñaan jël na alalam ak doomam jox lépp sëriñ Tuubaa waaye jox lépp sëriñ ci buntu sëriñ baara waaye bi mu ko fay itam pencum sëñ ñaan boo fa taxawee képp te waxuñu la dara nga xam li pencum sëñ ñaan la nga xam ni jëfal waaju baax rek am solo la ma waxoon koo gis dooy def koo gis teral ko léegi nga teral ko yàlla teral jóge fa tedd faaw waaye booy def koo gis teddadil ko léegi nga teddadil ko yàlla teral jóge fa yow teddadi sëriñ ñaan nag jàppoon sëriñ tubaa teg ko ca kaw mu bokkoon itam ci as lisina as saabixoonal awwaloon lisina tabo bi ihsaan topp sëriñ Tuubaa toppin wu rafet wu rafet rafet fonk ko teg ko ca kaw eggoon na ci loolu itam da caa wéet bariwul nag kuy dóor sa bopp yeew sa bopp di dóor loolu ngir lan naa entraîné naa tàggatu naa def riyaada badani yi ci sama yaram ba bu mu fekkente ni fekki Sëriñ Tuubaa jar na dóor wala jël alal jox ko wala miraas sa bopp ak say bokk jar na ko ñu dóor ma ci loolu kon mbir mu am solo la mbir mu doy waar la mbir mu jafe la loolu dëgg dëgg Pastef la waaye waaye ab Pastef moo ko laal moo tax li alxuraan de xuma yulqa ila soazin azim borom sens ku yàlla dimbali mooy tase ku mel noonu ba pare nangul ko jox ko sa bopp rawatina nag joxin wu mel ni nga xam ni yow sa bakkan nga ca gar kon suñ ñaan yàlla na yàlla tas suñu ci barkeem ñoo ngi doon dëngal ci kàttanu yàlla le premier mai bisam ci diggante bi itam euh, ginnaaw bi xam ngeen ni incha allahu Mamadou Bachir Mbacké sëñ Xadim Awa Ba mi ngi fàttaliku ci bis bi mu dëgmal di le 24 mai le 22 ba ci kàttanu yàlla sëriñ Abou Madiana Mbacke lañ cey waxtaane at mu jot ñu def ko kenn ci doomi sëriñ Bara yi daaw jéeg sëñ Abdou Aziz Bara la woon daaw sëñ Abdou Karim bi mujj sëñ Yeddali ren incha allah sëñ Abou Madiana Mbacke lañ ca fas yéene waxtaane le 22 daañu ci gën a yaatal ci kàttanu yàlla ci plateau yi waaye itam da cee rendre hommage di ci di ci ñaanal bu baax a baax président Ousmane Masseck Ndiaye waaye sëñ Abdou Hakim waaye soxna ma Asta Bara waaye euh, sëñ Abdou Baaxe Mbacke mu sëñ ma sàmba ñun ñëpp dañ leen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bis yu am solo yoo xam ne mu ngi mel ni bis bi nu dëgmal di bisu sëñ ñaan jóg bis yu am solo yu mat di fekke ndax li alxuraan di wax fa firoo ila laahi ak saabixu ila maxfirin min rabbikum yooyu mooy dox jëm ci lu baax ak istijibu lillahi wa li rasuli isa daakum li ma yuhyikum dox waaxu jëm ci yu baax mu ci nuyu bu baax met ma di Kenya bu baax a baax a baax di ci nuyu mbàkk yu fay di ci mu nuyu itam euh, kenn ci njabootu sëñ ñaan di jàmbaar ku ñoo xam Mbaw sëriñ Medoune Mbaw ñu ngi lay nuy bu baax a baax a baax waaye di nuyu itam euh, euh, El Hadji mi nga xam ni moom moo yore ak sëriñ Fall sëriñ Fall ñu ngi koy siyaar bu baax waaye El Hadji Fall mi yore fédération Daïra Mounawir Bunyan ànd kook Habib da nga xam ni Habib Habib Diop mu soxna a toogu fi def fi lenn lu dul ndigalu sëñ Sidi Mokhtar kilifaam yi nekk ci ndakaaru kenn ku ko soxla mu bàyyi la muy def fekk si la ñëw ba sa soxla mat loolu moo tax sëriñ bi jël ko teg ko fii mu nekk dëkk boo xam ni dëkk wàccuwaay la waaye dëkk bu doy waar waaye mu nekke fi la maamam nekkee woon sëriñ ñaan ci sëriñ baara te ñaan ci sëriñ tubaa mu jaay njureel gi lépp jënd ko taalibe waxul sëñ ñaan yi sama maam ñaari yoon sëriñ baara di sama maam ci Cheikh Sidil Mokhtar bu gisoon Cheikh Aziz tey doo seen mbaxanam doo seen dàllam kon Abibu yow tamit liggéey bu mag bi nga liggéey ci Sëñ Tuubaa sa maam e, taalib yi nekk ndakaaru yëpp nekk ak yow ñu ngi koy rafetlu di ko ànd ak yow ak it ñi lay jàppale ci liggéey bi di siyaare ñëpp nag di ci nuyu itam li e, e, ma ko waxee woon léegi Mamadou Bassirou Mbacké Jaxate ndax sëñ ñaan day sëñ baara boo ko tuddee tudd nga ko sëñ baara gépp njabut siring bari gep moy njabut serigne ñaan gep njabut serigne ñaan gep moy njabut serigne bari gep wax nañ deug sax kat ba degusah deglo di nga dégg seexal na seex bu meuna a serigne sëriñ ñaan bu meuna ñaan serigne ñaan waye seex gi mi ngi départ ci serigne Touba moom ñaanal mu bok ci seex yu mag ya mu boole ko doom di serigne bar bis ba nak di bis bo xamni jang alquran jang khasaid la ñaan la ak bernde muy bis boo xam ni bis bu mu wàcc liggéey la am na bis bu fi dox ci diggante bi sax boo xam ni mooy bis bi mu gisee ak Serigne Touba nga xam ni ak bis bi mu njëkk a gisee ak Cheikh Mamadou yooyu yi bis dañ koy màggal kon yooyu itam de ak tegtal la firnde ci lii ma la wax ni te jàngal la bay du léegi ne la ca seex yu mag la bokkoon yi jiitu woon ci Serigne Touba ànd ak Serigne tubaa mu boole kook Cheikh Mamadou Lamine Baara ñu ànd sëriñ Baara ni Serigne tubaa dama bëgg du boo sañoon du ma taqali koog moom serigne touba nak bolé na len tay ëlëk li mo waral bolé bolé serigne touba nak du tass ñu jappante ngir yalla ak jëmmi serigne touba euh le premier mai ci katunu yalla lañ cey def du doon guddi yoy xam nga ni du doon jang yi fanan du doon ay lenn ludul xey di durus alquran di durus khasaid di bernde ba takusan ñu dajalo waxtaan ñaan sant ku fay kilifu gu gëna jëgé serigne bi ñaan ànd ñu dem siyaare ji Sëriñ Sidi Muxtaar ndax loolu mooy ndigal li Ndakaaru itam ñu ngi koy waajal daayira yi fi nekk mu nawirul bunyaan fédération bi ñu koy waajal Safinatoul Amam ànd na ak abib Diop suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñu ngi waxtaane ak ci rajo yi incha allah di communiquer di waxtaan ci sëñ ñaan ak mooy kan ak liggéeyam ci Serigne tubaa ak Serigne Baara ak bisam bu tedd bu mag bi nga xam ni dëgmal nañ ko nga xam ni waxtaane ko mooy waxtaan waxtaane Serigne tubaa waaye mooy waxtaane Serigne Baara mooy waxtaane Cheikh Moustapha mooy waxtaane Samad Fadal mooy waxtaane Serigne Bassir mooy waxtaane képp ku baax ndax ñoom li alxuraan ndax laa nu fariqu bayna ahadin rusuli ñoom ñëpp. kenn ku ci nekk ci ñun ab sang lañ la def noonu lañ la jàppe te loolu la yàlla dogal itam kon bis la boo xam ne bii bis la bu jar a fekke bis la bu jar a góorgóorlu bis la boo xam ne itam bisub lislaam gépp bisub murit gépp waaye bisub waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké la kon nag ñu koy bàyyiloo xel bokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne féete nañ Dakar itam di ci ziar bu baax euh, euh, Met Dieng nga xam ne day taalibe ba noppi di ko a yëngukat bu baax a baax di nuyu soxna Ndey Derwiis soxna Ndey euh, bis bi itam nima ko waxe won yow sa bis la yaag sa njabot ndax ku tuddu Serigne Bara xel dem ci Ousmane masek Ndiaye ak njabotam te it ngeen nang ko bu baax waxon na ko bëkk dem ci kanam Cheikh Sidi mukhtar ne la euh, bayu fi dara lo bayyi mu nax say kon it bis gog bo xamni e sun suñu bis la ñu ko ngir yalla ak borom bis ba Serigne ñaan nekkon ko xamni itam lu mata a xel la te yalla du maye dara diko nang daana jak nit aajam faju seex bu mën a ñaan jooju ñuy wax tey la tey la li olof naan tey la wàllu gën a aay fi mu toll ni pas-pas boo amoon dem ci xalifa mbaa kenn ci doomam ngir yàlla ak jëmbi sëñ Tuubaa ak sama Lamin Baar ak sëñ ñaan ñaan googu ijaaba boobu ngoon xam ne daanaka mbirum da nga naan wax kun la ndax da nga daa daa nga ñëw sax wax ko soxla ba noppi mun la jógal dem fekk aaju fajul yooyu nañ bàyyi xel ne daf des ndax li li ma sëriñ Abdou Aziz Abou di wax lu am solo la Euh, di ci siyaar euh, ci passage Sirul Maçon fédération Sirul Maçon bu Cheikh Serigne Abou Madiane yépp incha allah moom it màggalam yàgg ci kattanu yàlla waaye euh, wilaya ak baatinik yooyu yëpp matériel fii la mën naa jari bañ a jariñ fee dara waaye ñi ko yoroon it mën nañ leen koo bañ a xañ ba di ko yóbbaale seen njaboot moo xam ne woon Cheikh Modou Lamine Baara la boo seetee doom ju baax ji tey mu ngi ci bu fees dell xanaa yàlla yokk ko waaye lu mu cay wàññi dara amu ci. lépp loo xam li mi ngi woon Serigne Bara mi ngi ci loxoom mu teg tey jii soo seetoon tey demal kër Serigne falu sañ-sañ Bara wilaaya ga ak na am lépp nga jabootam rawatina xalifaam bi kon loolu itam nañ bàyyi xel ni euh, gis nga jëlal masalan waa kër waa Daarul Mooti Serigne Cheikh Khady bi muy defaraat jumaa ji di milliard dëkk ci bant néegu bant ba néeg ni ci la dëkk nga xoolal jëf jooju maam Cerno lu ma a bay jëf ko ci gëléem ak i baam jot ko Serigne Touba ay dox ba néeg ni du jóg foofu tey boo demoon kër si bi dafa nañ daan laxasaayoo ci ay ndogu tey la ndogu yu gën a bari tey la gën a neex tey la ëpp kon ñoom it leen yàlla daan joxe damay yaakaar ni dañuy rafet njort ci ni da koy yokk tegaat ko ci loxoy seen njaboot ñu yor ko moo tax suñ juwaa doon wax naan durriyatan tayyibatan tujaddidu nax bi bil Moustapha waaye tëj taxidu njaboot goo xam ne dañuy góor góorlu te sell te sellal di defar defaru bay defare yoo xam ne dañuy yeesalaat fu ñu toll di yeesal di fomp di leeralaat nax jënna bi yël Moustapha yoonu bi nga xam ni ngay sóobu ba mën a àgg ci alayhi salaatu wasalaam ba mën a àgg ci yàlla te mooy babil wu sóol li nay li sóol te tëj taxidu ñuy farlu ci yoon woowu loolu moo fi dul jóg ba nga ni loolu moo fi dul jóg nañ mokkale woon alxuraan jamono yu Sëriñ Tubaa ci tuut tànk ay ndaw di ko mokkale tey lañ ko gën a mokkal nañ daan mokkalee xasaayit lu demee ni ig fi nii ak daar ba sëñ Tuubaa di ci yoxe ñaar fukk juróom-ñett ak fas di ko dig ko mokkal mag ña di ko mokkal tey jii lañ ko mokkal ba nëga di si kaamil leen daan jàng wàññikuwul dafa yokk ba sëñ Tuubaa oon daari kaamil ci njaarim ñuy xëy di ko jàngal kaamil suba kaamil bëccëg tisbaar bu kaamilu takkusaan kaamil yooyee tey jii boo xoolee li nekk ci jumaa yi tey la gën a bari Touba jàkka yi tey la gën a bari ah xafaas yi mokkal alxuraan tey la gën a bari te bis bu set ñu jàngaat lim bu tol bu bu toll noonu ba bu ko ëpp ci ci ci biir Touba njaarim it dañ koo yokk waaye wàññikuwul boo demee ba léegi daal di kam di fa suñ Touba defoon sëñ Ahmadul Muxtaar la la ci sëñ Modou Moussa doon def Cheikh Gaynde Fatma doon ko def ba tey sëñ Modou Moussa di ko def ma ngi koy def la sëñ Cheikh Mbacke doon def ba tey boo demee sëñ Abdou Fatah da ko yokk waaye dara wàññiwu ca kon ñu xam ne Serigne Ñaan Jóob mii ñuy waxtaane tey di itam kenn ci jàmbar lislaam yi di ci mag ñi nga xam ne dafa jëf ñu gis mu liggéey liggéey bu rëy ci Serigne liggéey ko ci Cheikh Modou Lamine Bara Mbàkke doomi Serigne Touba ji nga xam ne mooy ñetteelu doomi Serigne Touba yàlla baax ko itam ba doomi Serigne Bara ji nga xam ne tey mooy Serigne Touba jaaroon na ci moom ab biir dero dellu ci Serigne Cheikh Awa Balla Euh, liggéeyal na Serigne Bara ba liggéeyal ko liggéey boo xam ne itam mooy kër te itam xanaa Serigne Bara boo ko liggéeyalee kër fii da nga la fay kër ëllëg daan na wax naan gis ko bokk ci man baax na loolu Serigne Bara wax na ko da ko bind sax rabbi nii xadan mi ne niiraani wal ahli wal awlaadi wal jiiraani sunu borom na ko may fegal ko euh, euh, sawara ci ñoñam ak dëkkaaleem moo tax dëkkaaleeg moom it am solo wal ahli wal awlaadi ak njabootam gépp nag ak ñooyam ak jiiraan dëkkaale yi nga xam ni kon ñaan boobu ñëpp la ko defal ma saa wax ni benn waa sa saa bàyyi ko Louga ni daf koy siyaar si ndax daan mucc sawra ëllëg ba mu ñëwee laata muy agsi ñu bari ne nañ riwaaye bu wér la ne den ko séen nga Mbàkke Kajoor dul séen sawra ëllëg kon pas-pas ak siyaare ji waa ju baax lu am solo la ñu jàpp ni kon liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba ci buntub Serigne Baara Mbàkke te Serigne Touba boole leen rawatina kër gi mu ko defaral fukki néeg ak ñaar mu def ko ci bis ba mu ne ko dama lay fay fay malayka ndax jëf malayka nga ma liggéeyal nañu jàpp ni loola tey la gën a yokku tey tamit pay googa dafay duñ koy multiplier bis bu set di ko jox gis nga alayhi salaatu wasalaam sëñ tubaa nee bi mu doon liggéeyal yàlla jàll muy safarul baxar ya exil sëñ tubaa bi sëñ tubaa nee na màggal gii li tax ma ciy sant yàlla saa bu del siwaatee lu toll ni la ma yàlla mayoon ci ay may mu jëlaat lu toll noonu tegaat sama loxo moo tax mu ci sant lu yàlla moo tax mu ne ku ci def saw ñaq bu ëllëgee li taxoon mu tukki du la réer waaye ñu xam ne te la woon ci sëriñ ñaan dafa yokk ba noppi ñu teg ko ci loxol ay njabootam waaye jógu fi te du fi jóg loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax moo tax bii si mel ni ku ko wa bu ñu ko wootee ku demal ku mën a def sa alal defal sëriñ bi bu laajee bu wootee wuy jil bu laajee joxeel maa ngi koy wax barki démb ci benn waxtaan ba ci jumaay Serigne Touba ji sëñ Sidi Muxtaar jël alalam jiital ci ba noppi joxoñ ñu ko te alal ji mbakk yu fay jiitu ko mu liggéey bu am solo nga xam ni da nga koy jàppe ne la Serigne tubaa waxoon Serigne Fallou ni ko ci jumaay tubaa li yaa lii ko man alaka am bayyi na wa yaayee man ayya am bayyi ku ci feeñ feeñ faw ku ci suul suulu faw waaye fekke naa liggéeyub Serigne Touba ci kaw suuf fekkee naa Serigne tubaa laajal boppam mooy Cheikh Sidi Muxtaar ma am te joxuma ko loolu dalul xel ndax am na ñu ni woon géejoo tey fekkee tey euh, gis Serigne Touba laaj wala ñu fekkee foo xam ni gis foo xam ne mën nañ faa liggéeyal Serigne Touba ndax Serigne Touba moom dafa wax yonent bi alayhi salaatu ne ko ci jamono yi maam Cheikh Fall di jébbalu ni ko bi si seen isaaraat yu junj yu yàgg yooyu nga xam ne wax naa ko ci beneen télévision ba mu ko ne boo fekkul woon sa bàmmeel sax sa bàmmeel sax mu gisoon danaa ci am li ma bëgg daf ko wax ni ko man biddiw yi ak asamaan si ma xam ne tiim na alayhi salaatu wasalaam rek suuf mën naa cee am li ma bëgg ci yonent bi alayhi salaatu loolu mooy pas-pas yàlla moo nekk fépp maa yakunu najwaa salaasati illaa huwa raabihum wala xamsatin illaa huwa wala adnaa min zaalika wala aksara dégg nga fu waay nekk ñaar ñaara ñetteel ñett yàlla leen ñeenteel juróom mu juróom bennee leen ak lu ko yées wala lu ko kawe fu nekk suñ borom moo fa nekk kon ñu xam ne kon liggéey la boo xam ne bii lu mat a farlu la yu mel nii euh, bu sëriñ bi laajee joxeel bu wootee wuy jil mag ñi doxoon nañu tànk dem gànnaar léegi fi ni kuy dem Touba boo duggul ci boo boo boo duggul saxaarit oto ngay dugg waaye du ko sa tànk amul kenn ci ñun koo xam ne yaa ngi dox màggal genn màggal lu genn nag dalay jaral sax bu amul parce que toog tayit boo ko amul mën naa am nga gis ku lu yóbbaale wala boo doon dox ñu dab la waaye mag ñi fii lañu waree balaay doxee tànk neen seen tànk seen tànk ba gànnaar fekk Serigne Touba waaye dama doon wax naan yomb fayda jombas euh, sama benn xarit ne ma ba wis ko xaal ba ñu demet Sëriñ Tuubaa ne leen yéen ñi dikk faaraxu dari aw saara te loolu jugu fi indi la si ne ilaa sar saara xat xasudu seeriti faaraxu dari ni aw saara màggali nit ku yàlla màggal ngir yàlla seeti waaye yàlla siyaare ko loo ci jële ak ziyaada wi firi ak yokkute kon si ñaan jóoba ngoog bi sama ngoog kan mooy sëriñ ñaan jóob defe naa ni nañ ci tuuti ko mooy ki nga xam ni e, teel naa feeñal mbaax mooy ki nga xam ni jàngalekat bu mag la woon boroom xam la woon waaye mooy ki nga xam ni ku feeñal kiimaan la woon waaye mooy ki nga xam borom fase la woon baleex la woon borom balaaxa la woon ba doomi Sëñ Tuubaa di ko taamu ak mag ñi ci ànd ci tukki ak waxtaan ak taamu di toog di dégg waxam ngir li ci jóge ci balle ci ay njariñ yoo xam day jóge ci gémmiñam gu tedd googu di dugg ci seen nopp ñu di ko dégg di ko jariñoo nga xam ne bu la jàngalee da nga koy gaaw dégg trop ndax moom li ma la wax di faseex la woon bu waxtaanee ak yow it waxtaan dafay neex ci yow nga mën caa jëlee njariñ soo tukkee ànd ak moom itam bu mu yëkkati doom képp sa xel dafay dal euh, ñi lay déglu itam dañuy tiré attention bu baax ci waxam boo ko yëkkatee wa tax Cheikh Moussa Al Karim àndoon ak moom tukki sëñ Omar Mbacké Gelongal ànd ak moom tukki waaye Cheikh moom Lamine Baara ànd ak moom tukki waaye bi sëñ Baara ñëwee moom ci biir tukki moom sëriñ Baara moom gis nga ko moom mu masaan soxla dara noonu la koy waxee da laaj soit mu jël laaj loo xam ne daf koy defar wala mu laaj loo xam ne da koy dolli waaye moom yàlla noppi na ci moom ba muy doomi Sëriñ Tuubaa di ñetteelu doomam am jagle yoo xam ne jagoo na ko gane àdduna tubaa fi Tuubaa fan ci tubaa fi Sëriñ Tuubaa nekk fi jumaa ji nekk fi Sëriñ te tëdd tey yooyu yëpp di ay jagle yoo xam ne am na ko ci Sëriñ tubaa am leetaru jagleem boobu moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nga xam ni eh, waykat ba daf ko yegg yàgg mu ni ko faj aaju moo ci gën a gaaw lu mu wax boroomam mu ni waaw te day fal di fal ci lu gaaw waaye fee sax dañu bu leen di déngatu yoonam ndax njanaaw la awulu yoon te sañ-sañ ba ca bàyyi ba lu cay seenu yoon kon lu bàyyi xel ma di ko yëgal itam bu baax a baax ci kàttanu yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk muy fédéra daayira mun a euh, wala wala euh, fédération sax waa manayilu safiya la manayilu safiya mooy jigéen ñi kuréel bi lënkale surtout tubaa yu jigéen ñi te soxna Dadi Mbacke Moustapha jiite ko yal na yàlla dolli ko kattan jàppale ko ba mu àggale ñu nuyu baax madame Mbacke soxna naata bu sëñ Basiru Mbacke Murtada di ko siyaar moom ci liggéey bu am solo bu màgg bu nga xam mi ngi ko taxaw ci soxna yi ndax wëllu ci jur gi la bokk wax naa ko ba tey wëllu ci jur gi la bokk dama naan wax mooy wax ak soxna ja Serigne Basiru Mbacke Jaxate ma ne ko wëllu ci jur gi la bokk ndax dafa duggee ci jigéen ci Serigne tubaa Eh, moo tax ma di ko wax loolu di nuyu soxna Soda Mbacke ci lu Safia eh, soxna maam Fatou Mbacke eh, di nuyu njaboot googu yëpp di leen bàyyiloo xel rek bis boo xam ni bis la boo xam ne am na solo sama mbokki technicien yi fi ma doon bëgg dugg ñu ngi may xamal ni ma rek soxna Mariam moom mi nga nekk ci caméra caméra bi mi ngi mi ngi may wax ni ma waa Rési nee ñu daal daanaka juróomi minute ba ñett sax nee na moo des ci waxtu wi. xanaa mu nuyu kon ziar bokki jullit yi bokki taalib yëpp rawatina nag waa kër maam Thierno Biraye Mbacke si aussi te ka toog ci bopp ba boo Cheikh sëñ Cheikh Balla di eh, sëriñ maam Thierno mm, Daaru Marnaan di nuyu sëriñ Lamine Mbacke eh, di nuyu itam eh, rakkam Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Jili Mbacke noonu laa siyaare nag Ibrahim sama xarit Ibrahim Mbacke mu sëriñ maam Thierno Mbacke mu nekk fii ci Sicap di doomi El Hadj Maam Thierno Mbacke mu Serigne Cheikh Awa Balla ñu ngi koy nuy bu baax di ko siyaar di siyaar itam magam yu tedd yu baax yooyu Mamadou Amine Mbacke naka noonu Abdoul Ahad nu ma ko waxee rek ak itam képp ko ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah di nuyu nag njabootu sëñ mu daaw Balla mbokk yi nañ ma jeex ñu tàkk waaye bu tuddee tudd Baay Fall sëñ mu daaw Balla muy sëñ ma Fall Fall di nuyu sëñ Jiili mu daaw Balla waaye sëñ Mamour bu sëñ Cheikh Awa Balla maa koy nuyu di wàcc sama kàddu rek di dox yàlla yàlla def ñu dégg topp Cheikh Awa Balla Seck mbokk waxtaane seen ñaan yëpp dañ fi lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Allah